toog ak borom bis bi tey Soukeyna bu Séeri Nafi waaye moom bu yàgg ba la woon waaye léegi su Soukeyna bu Lamine Ndaw la en ah, transitaire bu mag bi ñaareel xaritu jëkkëram ñaareel xaritu jëkkëram oui moom <laughs> tey loo yëg tey ci bis bi kontaan am mbégte gis sama xewle gis sama nit ñeeg sama ñëpp ñëw teewal ma voilà aw mënuma wax c'est tellement que dama kontaan euh, depuis un certain moment Soukeyna euh, gisuñu la ci réseau yi gisuñu la ci internet bi Eh, ñu jékki rek gis ni may nañ la borom kër gis nga xew bi eh, na mu demee woon ak ya ca xewoon yëpp déjà eh, déjà sa diggante ak sa borom kër muy Lamine ndaw lan nga ñu ciy wax. Zeyna kooku moom wax dëgg fa yàlla mënuma mënuma mënuma wax ci moom voilà leen rek laa ko mun a def mooy di ko sant di ko gërëm ndax teg na ma teg fi ma war a teg yaraat na ma yiir na ma bëgg na ma bëgg na sama ay mbokk franchement aw ma aw ma fayam donc mu def lu ko dul ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi may ko gudd weer mu dem ba fekkee ay ay njëriñu njabootam incha allah dem ba sëñ Fallou di ko teral pourquoi pas ah. ngeen a may soxna jaar ak yëpp. Ah, léegi day ñëw léegi léegi léegi léegi soxna jaara day ñëw sëñ Saliou day ñëw ah njabootu sëñ Touba yëpp dinañ ñëw incha allah. waaw yow fu mu toll nii li li xale jigéen def doo ko def de yow moom da ko ci teg rek. pareegoo damay neef. waay pare quoi damay def bu bëri doole. <laughs> tey sa boroom kër gis nañ taxawaay bi nga xam ne taxaw na la euh, comme ni nga ko waxee tey saa su ne sa kàddu yooyu nga yëkkati daf la jàppale daf la taxawu euh, boo moon kàddu seede yoo koy seede yan kàddu la. Lamine comme li may wax rek yaru na baax na bëgg na ay mbokkam julliti na surtout respecté na diineem. loolu aw ma aw ma aw ma aw ma lu ma ko mën a waxal voilà donc lii laa doon ñaan yàlla defe naa ne bi ñuy mujjee gisante loolu lañ doon wax lii laa lii laa doon ñaan yàlla am jëkkër ju jullite jëkk ju ma bëgg jëkkër ju ju ma xam teg ma sama place lii laa doon ñaan yàlla te yàlla may na ma ko donc lu ma def loolu di ko sant di ko gërëm waaw. tey yàlla may la boroom kër boole la ak moom ngeen am tout tànk mu tombeek ci weeru rajab bi euh, ngeen jël tur bi jox ko Serigne fàll ku xam Soukeyna sax da koy xam digganteem ak Serigne Saliou ak cofel gi moom Serigne Saliou waaye ku wax Serigne Saliou wax Serigne Fallou ci weeru rajab bi. kontaan Zeyna mënuma mënuma sax wax barki ku xam Mad Lamine xam ko xam ne taalibe Serigne Fallou la donc nii rek la mënoon demee kontaan naa kontaan ba fu kontaan yam dëgg fa kër gi dina neex moom bu nee sëñ Fallou aw na yow nga ne sëñ Sali aw na. waa kër gi neex na ba pare kër gi boobu neex na ba pare fii ba njabootu sëñ ay njabootu sëñ Tuubaa fi nekk waaw kër gi moom mu ngi nii kër kër murit la voilà ku ñëw da ngay bokk mu ngi noonu daal kontaan naa bu baax kontaan naa trop. Mhm. su kay na nga doon xale dugg ci sëy bi ngay dugg sa borom kër fekk ko ak soxnaam nga ñëw doon ñaareel eh, déjà dañuy wax naan des fois wujj yi day metti diggante bi day metti eh, sa diggante ak sa wujju dal la. jàmm ak salaam jàmm ak salaam. lu weesoo tey euh, ñu ngi la doon gis série yi gëj nañ leen cee gis est que ñu ngi xaar su na ñëwaat ci série yi wala bu ñëwaat nekk di yëngatu ci loo xamante ne ay yëngatu boppam. léegi ma euh, tey ñu gisoon la ci série yi nga doon yëngatu ci série yi euh, biñ la gisee bi nga duggee ci série ba tey dafa mel ni nekkatoo di yëngatu ci benn activité est-ce que ñu ngi xaar su kay na un jour mu delluwaat ci série yi. non non non non non je pense pas loolu déedéet xalaatuma ko fu mu toll nii maa ngi sëy maa ngi ci sama jàmm. dëj nañ ma fu baax donc te dama fas yéene sëy ba sëy du noonu toog toppatoo sama jëkkër sama doom gérer sama foyer voilà fi mu toll nii moom loolu rek la. à part bi am na ci activité boo yëngatu wala da ngay toog rek concentré. non damay sëy damay liggéey damay sëy damay liggéey parce que loolu loolu loolu moom moo war a war loolu laay loolu laay loolu laay def incha allah waaw. lan ngay dénk euh, sa moroomu célébrité yi nga xam ne dañu dëggu ci sëy euh, gis nga ay jamono nga doon dégg divorce yu bari des fois ñu ne sax jigéen ñi nekk euh, ci showbiz wala célébrité duñu ay sëykat waaye macha allah yow ba nga duggee ba tey yaa ngi toog yan kàddu ngay dénk jigéen ñi nga xam ne ñu ngi doon ay célébrité am boroom kër wala bëgg a dugg ci sëy di leen wax ñu muñ parce que sëy neexul surtout nga nekk ay ngeen ñu nekk xale teel a dugg ci showbiz bi ñi lay influencer dinañ bëri voilà mais nañ gën a jàpp jàpp bu baax sëy muñal seen jëkkër yi voilà defe naan loolu buñ ko defee duñu am benn faay ci seen sëy loolu rek la. nga def sañ bu rafet nag ñu war a xaar lan ngoon. ah nañ nañ toog nañ xaar seen sëy jeexagul. waaw ñaata nga war a sol. ah dëgg neexul nag mët Lamine dafa dafa génnee xaalis bu bëri dama sañ seel takkal ba ay or ah, jox ma xaalis bu bëri. dama lu neex dafa parce que yaay deuxième dame waa yaay ñaari xaritu jëkk maa ngi di ngay taggee ndaw ñi sant ndaw noo leen di taggee. ndaw Sane ne aram faxa borom du ko maan kooku moo ma mu bëgg ko mu bëgg ma te dañoo fas yéene sëy ba sëy ma ak moom incha allah ñaareel leen ñu rek yàlla ñaareel leen ñu bu baax bu baax bëgg naa Sénégal Sénégal sénégalais yi ñëpp ñaanal ma ci sama sëy bi ñaanal ma bu baax bàyyi ma sama jëkkër. du noonu ma sëyal ko ba sénégalais yépp àdduna teg ci seen bët incha allah. Ah, kon ñu bàyyi la nga dem rek daal di yeesalaat ñu daal di langaat. waaw waaw yeneen a ngi ñëw a ngi toog leen rek. xëy di nga fecc wala. waaw dinaa def yooyu noonu yu garaaw yooyu noonu. mu ngi noonu mbokk internet di na ñaareel xaritu jëkkëram kon ci kanam eh, ñu daal di ànd ak moom ci ngénte li nga xam ne moom la am tey jërë ngeen jëf.